maa ngi leen nuyu yéen jigéenu waa Cité Lamine yépp di leen gërëm ci tertu bi gis naa ne ne xaar ngeen mais jaroon na ko te sama xel tam dal na parce que dama ànd ak seen doom jéggi ay koñ yu bari lii du meeting moom dama ko woo pour ñu liggéey ci mouvement bu tudd Thiès d'abord mouvement Thiès d'abord day ñëw rekk yokk parce que dama koy wax chaque fois Thiès du benn xel a koy defar Thiès du benn bopp a koy defar ku nekk fi nga nekk li nga yor da nga ciy jox sa wàll man ma jóg ma jàpp na ne tam mën naa ci def sama wàll ma woo ko moom seen doom mu nangu ànd ak man liggéey moo tax bu ma ne kaa ñu dem cité Lamine nga waxtaan ak samay sœur waxtaan ak samay tànt waxtaan ak samay jigéen loolu mënuma ma ko bañal te yéen fi nga ngeen ne man juumuma bu mu koy tànn maa ngi leen siy gërëm bu baax Thiès d'abord li ko yitteel Thiès d'abord li ko yiiteel li lekk la di xalaat li wut ay solution si lu xam ne ne jeunesse Thiès ñu koy dund jigéen ñu Thiès ñu koy dund sànq am na benn soxna bu ko wax mu bokk lu am solo si ñun mooy troisième age ñu xam ne toujours dañ leen di fàtte foo dem jigéen yi lañuy wax naam si la bokk foo dem ndaw yi la wax naam si lañuy bokk mais dañuy fàtte ne kër ga ba léegi am na ñu xam ne ne ne liggéey nañu ba retraité ñu nga ci kër ga te ñoo ko ba léegi ñun di leen may doole. donc suñu programme lii la dañ koy wax formation et l'emploi des jeunes lépp lu xam ne ne day yiiteel formation emploi des jeunes dañ ciy dox di ci wax buñ ci mënee woo autorités yi alerté leen ci dañ koy def lépp lu xam ne ne appui. et soutien aux femme tey defe naa moom la ñuy def ni dañ siy dox appui et soutien aux femme da ngeen si wax lu xam ne dama koy résumer si lii rek la mooy formation financement suivi bu ma juumee ngeen wax ma formation laa dégg financement suivi ñun sunu mouvement dañoo avant ñuy commencer sax liggéey ut ay partenaires yi xam ne ne dañuy yëngatu ci mbirum développement local ci jigéen yi formation kii xam ne ne may ànd ak moom si moom ngeen si loolu ngeen ko xamee formation kii soxna si wax ak yéen ba yàlla tef mu retraité si formation rek la liggéey ba retraité donc ñun tey lu ñuy proposé sorowul ak li ngeen di wax parce que kenn du créer ru boo fekkee dara lu baax da nga koy jéem a defar bu mu sotti moo gën ngay jéem a créer ay ingénieur formation bi ngeen di wax day tàmbalee si seen GIE yi ngeen di wax ngeen jox leen tur mais tam ngeen formaliser leen ñu am registre de commerce ñu am NINEA ki doon wax sànq Auchan yi boo amul registre de commerce ak NINEA GIE bi lu mu am am am doole doo fa dugg donc ñun tey pare nañu bu leen defee seen groupement ba am seen liste man pare naa financé leen ngeen am registre de commerce financé naa leen ngeen am seen NINEA déjà forma formalité bi lu am solo la parce que loolu mooy dugal loolu mooy dugal loolu mooy dugal nit yi Auchan ah, mooy ne ay structures yu formalisé wu ba pare parce que Auchan ñi ñi leen di jaay nekkul ñeen lu dul local fii la ñuy jëndee fii la ñuy jëndee li ngeen di dugg Auchan di ko jënd jógewul bitim réew de fii lañ koy béyee fii lañ koy defaree. mais ñi yu dugal dañuy organiser wu mouvement Thiès d'abord nee na leen ak yéen seen frère seen caam yu fu nekk man pare naa bu leen organiser woo ba am seen liste yu leer bu leen ko joxee caat yu gunge leen si ngeen am registre commerce ak LINEA te ñu ñoo koy fay kooku ñun ñoo koy jël en charge l'essentiel yéen am ne seen groupement yu taxaw bu leen amee registre commerce ak LINEA ñu dañoo pragmatique nag dañ lay fekk rek suñu ngeen wax formation xool leen bu nekkee ne am na ñu defoon formation parce que formation dañ koy yeesalaat am na ñu xam ne saak dégg naa ñu ne def nañ formation ba sonn mais formation dañ koy yeesal li nga jàngoon daaw xul ak li nga li xew te chaque fois da nga war a recycler wu. moo tax dem leen di ñaan toujours sur proposition ñi xam ne defoon nañu formation ci dara ñun pare nañu bu ñu dajaluwaat ñu defar leen recyclage. ñu leen ñi xam ne suñu def formation booy jàppalee nit doo ko forcer du muy def saytu leen ngeen xool fan ngeen bëgguñu ñu leen maa ngi leen koy wax am nañu ñu koy def am nañu fu ñu koy defee am nañu moyens ñu koy def parce que am nañu ay partenaires yu nekk suñu ginnaaw ñu koy financé seen dërëm lu si dem ñooñu mooy ñi ma lay wax ñi xam ne ne defuñu formation ñële recyclage la. ñii dañ leen defal formation mais yéenay tànn si fan ngeen bëgg a formaliser formation ñu gunge leen si buñ leen formé parce que def ngeen bu ñu leen formé parce que def ngeen formation bi lan moo des du financement ñun taxaw nañu parce que def daaw nañ ko def man soruma fi doomu Kër Daago bii laa sama yaay jigéenu moo tay la maire gox la maire Rokhaya Diouf peut-être ngeen xam ko donc foofu jàppale woon naa déjà ay jigéen si yu mel noonu formé ñu gunge la am na ay structures yu xam ne ne ñun dem nañu waxtaan ak ñoom ba pare dañoo bëggul def publicité parce que dañoo nekk ay rajo ak ay ñu def publicité mais ay structures yu nekk fii Thiès nekk ñu Dakar fii la ñu nekk ñu xam ne ñun dem nañu waxtaan ak ñoom ba pare ñoom taxaw nañu bu ñu formé indi leen ñoom ñu tagat parce que bu ñu jox financement tam dafa am dañ lay won ni nga koy gérer bu ñu nangoo ba ñu def ko ñoom ñu financé bu ñu financé ñoom seen bopp suivi bi ngeen di wax ñoom ñoo leen di dimbale ngeen def suivi bi donc lu mooy process bi bu leen defee leneen nag mooy li xam ne mooy nit yi moom lañu tam ñëw jël sotti dangeen koy weer ñaari weer ngeen gis ne xaw ma leket bi lañ koy wax mu ne fag ñu defar ñun aujourd'hui loolu lañu indil waa Cité Lamy fekk leen exactement si li ngeen wax beneen bi xam ne ne peut-être fa lay mujje yéen yëpp bu leen defee seen formation def yëpp toujours soxla yi du jeex tey ku fi mënta jaar muy man ak sama morom benn poos jëfalu projet projet yi dañ ko war a structurer te loolu fa lay commencer sunu mairie yi man tey li may yokk si man si lu lu may liggéey mooy ne jigéen yooyu sunu sœur yooyu ngeen wax sànq sunu jigéen yi sunu yaay yi ngeen wax ne ay leader lañu nañu ànd ak ñëw bokk ñun sunu lis yéen ñuy jox turi ñu dem mairie bu jotee du ñu bokk suñuy lis yi ñoom ñu dem toggal leen foofu bu leen soxlatee soxlu leen ngay ut ku leen di waxal maire am ngeen fa jigéen yu brave yu xam ne ne ñoom ñu ngi foofu ñun loolu la ñuy yokk de plus si lu leen di proposé donc au de la de la formation la représentativité dans les dans les mairies ak feneen tey loolu mooy lu concret lu xam ne ne moom laa leen buggoon waxtaan ak yéen moom laa leen bëggoon proposé tey nag premier daje kese la da ngeen ma wax li ngeen bëgg man ma wax leen man li ma gisee projet bi te jàpp naa ne ne balaa ma koy wax balaa ma ñëw di wax moom mii xam na seen soxla tiis naa ko te xam naa ne wóotawul ak li ngeen di xaar si man nañ ko defandoo joxante ay numéro ñëpp di si teg seen bët ñuy liggéey de rek euh, yi NINEA bi ba financement bi ba suivi bi ça je suis prêt à le faire parce que mënu ma leen rëcc seen doom moo ko fi doon def duma yàqal liggéeyam bu mu ko jëmalul si kanam. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant du nuyu waa koñ bi yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu suñu goro yi góor yi di nuyu suñu goro yi jigéen yi du nuyu suñu nijaay di nuyu ñëpp. di nuyu sama borom kër bi nga xamante ni moo ma dooleel tey ba tax ma mën a génn fii taxaw fii naan maa ngi wax. waaw di nuyu Habib di nuyu Habib bu baax. ndax woote ñu wuy si rek dara dàqul loolu ma ne ko woote ñu wuy sila rek dara dàqul loolu waaye olof Ndiaye dafa am lu mu wax olof Ndiaye dafa ni bu leen gërëm ki ki xam taal bi bàyyi ki taxani woon ndax tey bu ñu defee association ànd booloo bi dafa am ku ñu dooleel muy caat parce que caat dafi daan ñëw ak dooleem moom kese gisuñu kenn Coupe d'Afrique bi passé dafay indi ay teraangaam yu bari leer na waakoñ bi mu jox ñëpp. keroog ba ñuy jubilé ci buntu kër gi tànday xadi ñang mais toog dafa ne nañ leen woo caat mu ñëw ñu jubilé ko ci buntu kër gi ndax teraangaam jëm fi def ak yeneen ak yeneen yoo xam indi fi ay mayo indi fi ay bagage ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne mi ngi koy def ci koñ bi yoo xamante ne ni ci doole boppam la koy defee di la wax ni la monsieur la ministre ñu la koy ñaanal sax nag waaw ñu la koy ñaanal waaye di la wax ne ñun waa koñ bi soxlañ nag ku ñu dimbali soxlañ nañ ku ñu jàppale wax dëgg si yàlla loolu dong mooy suñu objectif ku ñu dimbali ak ku ñu jàppale ndax ñi fi nekk yëpp ay femmes battantes lañu ñu fi nekk toog fi yëpp ay femmes battantes lañu liggéey rek la ñu gëm bëgg nañ ku ñu jàppale bëgg nañ ku ñu dimbali sekk nga koog nag ñoo xamante ne du ñu dellu ginnaaw c'est la première fois ñi woote lu mel nii mu am fi c'est la première fois man si talamin laa dëkk mais fii laa toxu si fii waali daan mais maa fi yoon mbootaay bi fi suñu présidente ngi mooy Gamou Gueye maa fi yoon bi wax dëgg si yàlla sa ginnaaw tey ñoo ngi sa ginnaaw suba ñoo ngi sa ginnaaw ginnaaw suba foo ñu woowee rek incha allah foo ñu woowee dinañ la wuy bu soobee yàlla ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw suba ñu ngi sa ginnaaw ginnaawaat suba parce que c'est la première fois laa la wax nit taxaw fii def lii lu mel ni am fii c'est la première fois kon nag ñoo ngi lay sant di la gërëm ci déplacement bi ak dérangement bi te ku ne xam ne temps amul ndax temps bi dafa xat jërëjëf xam rek lii xam ne ne moo ñor waa Thiès yéen tam ñor waa Hersent ku si boo bëgg si waxtaan ak yéen ngeen xam ne ne lu normal la ngeen ñëw maa lay remercier bu baax a baax a baax li ma bëgg a wax lu simple rek la mu gàtt sànq da ngeen ma ne damay dem fan mairie ba moom laa bëgg présidente nañu ànd si mairie ba moom laa bëgg si loolu laa leen loolu laa indaale mooy ne bugguma dem man kese bu may dem foog mu ànd ak moom parce que qualité yu baax yi ngeen wax ci moom qualité rassembleur qualité ku xam ne du këpp kees kooku loxo yi set la te ñun lu ñuy woote loxo yi set la ñuy woote ak gestion bu transparente kon moom mile loolu laa bëgg ngeen jàppale ko jàppale ñu ci élection sori na tey lañ koy tàmbali man maa ko wax yéen candidat la ak man ci mairie ba la parce que li tax ma bëgg mu dem li muy def nii si yéen ak ay moyens ak ay qualités man gëm naa ne ne bu ànd ak man de mairie ba mu gën leen amal njëriñ gën a amal doom seen doom yi njëriñ gën a amal borom kër gi njëriñ te bu mu ànd ak moom mairie ba lii xam ne ne cees fan yëpp mu koy dund Sampaate gis ngeen lu fa xew gis ngeen ngent lu fa xew jàpp naa ne ne mag moom bu ñu àndee bu ñu jàppee ak ñeneen war nañ si mën am solution gis ngeen démb rek wala tey maa ngi liir ndaw yi nekk université doomu Thiès yi nekk université am problème ñu leen di tabaxal ay établissement mais parewul mais xale yi dëkk fa dëkk bu metti kenn du leen ko jooyal kenn du la ko waxal ba ñoom ñoo génn bu ñu commencé grève ñu ne xale yi maa xadi bu ñu àndee bu ñu gisee lu metti bu ñu gisee lu metti bu ñu gisee lu metti bu ñu gisee lu doxul dinañ ko wax dinañ ko lijjante xam nga souvent dañuy ne maire yi mënuñu lii mënuñu ko mooy inondation bi mais fitna bu may joxe mooy ne boo nekkee maire nga woo ndaw yi woo jigéen yi élection am nga ne leen kii mooy waa ji dañ ko jàppale xale yi ñëpp génn jàppale ko ba tey bu nekk fa jàpp naa ne ne boo mënul boo amee problème war nga mën a dellu si kooku nekk ñi ma waxoon te ñu génn jàppale la lii mooy seen soxla bu ko mënul problème am na donc ñun lu ñuy dox mooy ne bu buñ leen bu ñu àndee ñun ba jël suñuy mairie yi xam nañu lu baax suñu gox ku bëgg a jógatu fii nga bëgg a doon président yaa xam boo àndul ak ñun si li ñuy doxal suñu Thiès bile ñun du duñu ànd ak yow bu nekkee nag ànd nga si luy jox Thiès bile ñun dañuy ànd ak ànd ak yéen fu may mujjee mooy formation président Khady wax ma kañ ngay tàmbale parce que am naa am naa ñu ko mën am naa li koy def am naa fu ñu koy defee si yow la yéex duggee rek ni mu duggee moom njëkk a neex dugg rek wàccee boppam ku ne mu jox la loxo dug fecc ku mu des moo koy def fii loo fi bëggul ci yaw a fii loo fi bëggul ci yow la danga ñëw rek dugg ñu te ñun loolu lañ bëgg ñun ñoo ngi instant yàgg nañ fi trop suñu mouvement bi ñoo ngi ko organisé depuis 1914 d'abord waaw 1900 2014 lan maa ngi jum de lan organiser sunu avec bi macha allah ça fait dix ans ñiy dem di dem di liggéey fii ay liggéeykat rek ñoo fi nekk ay jàmbaar ñoo fi nekk soxla mu ndawee góor ñu liggéey leen xam ñàkk jariñu ñëpp a ngi fi ñi jiital ma nag mënuma dara lépp ñoom la mënuma dara ba suñu Babacar Si lépp ñoom la su ma demee ba ñeme ñoom la su ma demee bay bàyyi su ma leen xool sax reculer waat dama leen a xaw ñeewantal man ñi ma boot dama leen a ñeewantal ndax dan maa bëgg ba ma xam dan maa bëgg ñu foot nag avec bi mu yàgg lool ñuy dem sàkk tabaski ñu sotti ku ne jox la sa xaalis ñu dem pour te diis avec bi nekk na nañ cent vingt ñu bëri ñëwuñu boot nañ ay jigéen bon nañ ay góor mais xamuñu woon nii lay demee bu xamoon dañ koy baas yóbbu ko ca àngal ba mais ginnaaw yaa ngi doge ñëw bu ne ba ci kanam di nga xam ñooy kan mënuma wax nag mënu ma wax mais dinaa wax ñu chaque année dañu organiser fii ñu mars bu rëy ñëpp ay ñëw macha allah nord est ouest mais ñun amuñu parrain sunu bopp lañuy demal ñooy organiser tànn suñu biir ay marraines jox leen ay cadeaux sargal leen ci jour boobu ñoo ko moom. suñu propre moyen kenn fekkuñu ci nag ñoo ngi ersan gi kenn fekkuñu ci benn politicien mënut a jóg ni carrément ñoo ñu jàppale avec notre propre moyen la ñuy demee def ko mu neex lool ku ne fekk si noonu ñi am nag dema dem ba suñuy doom am ay partenariat lu leen jógee ci eh, kii tànn ci huit xale seen bulletin sama loxo lay jaar mun naa la mënuma dara ñoom la damay jàll ni jël xale yi jox leen ay fourniture jox leen ay lingette mu ngi sama suuf batan soo ñëw mën la ko mais a amoo temps mais ñoo ngi lay dalal di la wax ñu ciment lanu bu ñu xasee ba jàpp jàpp na ñun te jàpp nan la ni nga duggee rek moo ma njëkk a neex ndax mënoonoo di dugg nga toog raatale bara mi di nga dugg ak say mbagg fecc mais la ku oyof a koy def ku diis du ko def kon ni lay wax yow euh, dama bëgg ngeen laalal ma ni la Habib yow yaa dugg ci sunu garde yow doo doo ko defati den la teral ba mu tedd te dara du yëngu atam yaa dugg ci sunu garde yow ah dina la teral ba mu tedd te dara du yëngu eh yaa dugg ci sunu garde yow doo doo ko defati